sëriñ bi yeesal lislaam ji baaxal pas-pas yi dundal suuf see fexel ko am tey woona ñépp ngir boole ñépp faj aajo yépp li xel ko ku bëgg a dëkk tey jii ci ay mbég dekkee ci ëllëg na ji xel ko ku bëgg a doon ñay làq ndam ak way ba faw nay xëy liggéey ci xel ko am ak yiw ak jak mucc ak njariñ ak mbootum goneeg mag yépp a nga xel koom cey ku fa ruujee déqee fa bàcci góobe fa naajee am yàlla xel koom ku fa tabax kër am lu gënug jur ku fa joxey sér am waayi xel koom kutali yoon wa rey xeet wa du seeru naaj wa seereem di xel koom ku togg ay añ yët dong nga kañ mooy làq sañ deel sotti xel koom tampeb njariñ yi ak yuñ gërëm yi ak may yu rëy yi yépp a nga xel koom luñ mës a tabbal ci kër ñu taqal bañ di ko yeesal xol baa nga xel koom xel koom du doon yaar mooy sippi bàkkaar tey dolli ay leer ci yàlla xel koom ku fi falooti balaa nu ak fal ga sotti canam nga xel koom tawféex januy may fanaan fa tey xëy di jàng kay bay ñaan naa ko xel koom na ñépp ñëw tey fàq defu say ba mel ni kuy say ngir tooli xel koom man bëgg naa la te sopp naa la ba noppi ñaan la ngay woote xel koom man bëgg naa la te sopp naa la ba ñoppi ñaan la ngay woote xel koom man bëgg naa la te sopp naa la ba noppi ñaan la ngay woote xel koom